ginnaaw bi mu tasee gouvernement bu Sénégal tabb kii di maître Sidiki Kaba ngir mu doon élimaanu jëwriñ yi yéenekaay bi ñaari dat ci benn élection nag lii wane na ni senegal mi ngi ci diggu crise institutionnelle tas gi ñu tas gouvernement bu Sénégal daal di jël maître Sidiki ba ngir mu daal di wuutu Amadou Ba ca bopp primature doole ca la Soleil yëglekaay daal di xëy àddu tey jii nag yéenekaay bi ne dogal yi jël nañu ko démb jëm ci élection présidentielle yi ak ay coppite yoo xam ne rek indi nañu ko ci poste premier ministre remaniement bu ñuy waajal ci fan yu néew àllarba joo xam ne rek lépp la daal di soppi moom la ñu dund démb ci réew Sénégal lu jëm ci datu présidentielle bi nag conseil constitutionnel ma ngay dàq lépp lu tukkee ci dialogue national bi ñu doon amal ca jam ñaajo président Macky Sall moom jàpp na ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ngir mën cee amal élection présidentielle yi organisation présidentielle yooyee nag juróom-ñaari sages yi ña ngay bloqué président Macky Sall ci yëglekaay bi di le quotidien yéenekaay bi ne dàq nañu lépp lu ñu tënkee woon ci dialogue national ba ñu doon amalee ca jam ñaajo président Macky Sall moom da di jàpp jël kii di maître Sidiki Kaba tabb ko ngir mu daal di wuutu Amadou Ba ci bopp primature ci ab bataaxal bu ñu fësal ñoom waa conseil constitutionnel ña xam ne ni mandat présidentiel bi nag warta weesu ñaari fan ci weeru avril te élection yi nag war nañu koo amal laata date boobu l'observateur daal di xëy xam ne nag ne président Macky moom ma ngay tënku ci kàdduy conseil constitutionnel ba fas yéene amal élection yi nag ba sub ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars atum 2024 game over loolee la yëgle kaay bi constitutionnel kay wutal nañu woy wi aw daanee la ginnaaw bi mu convoqué ñi séq élection yi ci datub fanweeri fan ak benn ci weeru mars ñoom juróom-ñaari sages yi nag ña ngay bàyyi xel date bi nga xam ne rek moo tukkee ci njiitu réew mi ngir woo askan wi nag ñu dem ci mbañ gàcce yi ba sub ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci noonee nag fukki candidat ak juróom-ñeent yi nag daañu am ñaar fukki fan ak benn ngir mën cee amal campagne ba dagaan baatu askan wi bés bi la jour daal di dellu siwaat ci juróom-ñaari sages yooyee nekk ca conseil constitutionnel yéene kaay bi ne nag ña ngay dàq la tukkee woon ci dialogue national bi ñu doon amal amal daal di tënku ci datub ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ab campagne boo xam ne rek daañu ko amal diirub ñaar fukki fan ak benn yéenekaay bi ne Macky Sall moom daal dinay libéré candidat wam bii di Amadou Ba daal di tabb kii di maître Sidiki Kaba mu doon élimaanu jëwriñ Amadou Ba di xamle ci biir yëglekaay bi ne dina def kéem kàttanam ngir mën a am ndam ci élection présidentielle yi waa sursaut citoyen ak waa Deme Sénégal la ñuy sàkku jamono jii mooy ab ministre de l'intérieur bu farul fenn ngir mën a amal élection yu leer yaakaar gu tas nag moom parti démocratique sénégalais ak Karim Wade ndax conseil constitutionnel nag fukki candidat ak juróom-ñeent yi nag ñoom la daal di dëggal ne ñoo fas yéene dem ci élection présidentielle yi yéene kay bi ne ñoom waa parti démocratique sénégalais kay fi mu toll nii nag bu ñuy wedd xaru wax lu jëm ba tey ci wàllub élection yi nga xam ne rek moom la ñu war a tëgg ci réew Sénégal ñaari dat yoo xam ne rek jàpp nañ ko ci jamono jii Macky Sall daal di jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars waa conseil jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru mars waral ba Eliman Kan bu aar sunuy élection nag daal di leeral ñaari dat yooyee ci ni mu gën a gaawee lum ci mënti doon daal juróom-ñaari saag yi nag wanewaat nañu beneen xar bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di Vox Populi libération di péconomie ménage dellu suwaat ci tabb gi ñu tabb maître Sidiki Kaba ci bopp primature yëglekaay bi àddu ba tey jëmale ci projet de loi amnistie bi nga xam ne rek woote nañu ko démb ca pencu ndaw réew ma député yi Pastef ñoom nag dañoo wote contre réew mi quotidien boo xam ne rek ñu ngi ko adopté ci juróom-ñeent fukki xob ak ñeent ñeent fukk ak juróom-ñett yi nag ñoo voté contre mu am ñaar ñoo ak juróom-benn yi faatu ci diggante 2021 ak 2024 président Macky Sall wutal nañu leen faat ab loi amnistie tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale réew mi sport ma ngay dellu siwaat ci wàllu football Abdoul Salam Mbaye moom la ñu tabb nag mu doon entraîneur bu yees ci ñi nga xam ne rek ñoo di ay lion malentendant sunu lamb la ñu koy jeexalee ak hommage bu rëy bi nga xam ne rek amal na ko tey ji